bi ñu ci fajar bi euh, les forces de l'ordre yee ñu ak euh, fitna bu métti ñëw yéeg ci miir yi dugg ci biir kër yi di këdd bunte yi di ko yax di jël ñëpp ñu fa fekk ñu fa fekk ñoo xam ay góor lañu amuñu benn distinction am na koo xam c'est un officier de police dañu ko dañu ko bëggoon embarqué dem ba ci oto bi lorsqu'il s'est présenté ci lañ ko bàyyi am na beneen sapeur pompier boo xam aussi jël nañu ko yóbbu ba après audition ci lañ ko bàyyi ci ngoon donc ñuy déplorer une situation comme ça nous comprendre au Sénégal ñun ñuy réclamer suñu droit ñuy réclamer loo xam c'est un droit Nous ñu ñuy traiter de cette façon là gis ngeen les balles yi nga c'est des balles en caoutchouc yu ma leen présenté tout à l'heure mënuñu comprendre des Sénégalais di sur des Sénégalais avec des balles comme ça ci ñoo xam ne dañuy réclamer tout juste leur droit

audition après audition ci lañu bayyi 10 pour le moment donc 24 quatre ñu resté au niveau de la gendarmerie ba légui ni amul ben yon bo xamné Pickup Investissement mas na présenter un rapport de présentation et un décret présidentiel pour wane ne nous ñom un titre foncier à ce niveau là donc ñun li ñuy réclamer moy que tant que présente nous euh, un rapport de présentation ak euh, un décret présenté ce titre foncier là nous on considère que titre bi li ci a titre bi fi mu nekk suñu yi nga xamné kilifa directeur Investissement réclamer nan réclamer lo xamné que une fois que nga jël possession euh, ces surfaces là am nga possibilité nga li c'est inimaginable au Sénégal. parce que waa Dougar taxaw je pense pas que nous sommes je pense pas que nous sommes. a un décret présidentiel c'est un décret présidentiel Le président bu Lille, mon signé premier ministre signé rapport de présentation le ministre de l'intérieur signé Nous respecter li nga